ñuy bokk di fi nafaraat lu jëm ci suñu wàllu jaamu yàlla démb bi ñu yëkkati jotaay bi ñu ngi doon nekkoon ci julli di waxtaane lenn ci sunna yi ak yi nga xam ne moom lañu sopp ba ñëwoon ci taaya jàng ko bañ ca noppee ñu ñëw ci ñaan yi nga xamante ne mooy topp ci ginnaaw eh, ki nga xam ne da doon taaya laataa muy sëlmal mu mel ne ci loolu ñu yëkkatee woon suñu jotaayu démb biñ koy jeexal nag ma waxoon la ne am na beneen bu ci topp boo xam ne ci sunna yi la bokk bu dee ci masabu imaam Saafi'i bu dee ci masabu imaam Maalik ñi jàppee ko loo xam ne dañ koo sopp muy li ñuy wax xunuut bala maa ñëw ci xunuut bi bi ñu yëkkati jotaay bi dañ doon joxe genn ñaan yoo xam ne ay mbokk ñoo ko doon sàkku ndax jaar gum fi jaaroon ñu di ko wax sayidul istixfaar sayidul istixfaar nga xam ne dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne koo xam ne dafa def ay bàkkaar te bëgg suñ borom jéggal ko muy jéggulu su ko waxee ci suba si suñ borom jéggal ko bàkkaar yi fanaane def yépp wala yim yendoo def yépp su ko waxee ci ngoon gi suñ borom jéggal ko bàkkaar yi nga xam ne moom la fanaane def yépp ñu waxoon ko ñaari yoon am ñu bari ñu sàkkuwaat xëy na ñu gën koo benn bennal ndax mu gën leen a jege te it biir e, bii di baax lool rek moo ko tax a jóg maanaam jotaayu jàng la ak jàngale moo tax luñ ciy wax rek noppi nañ ngir benn bennal ko bañ koo yàkkamti ba mbokk yi jariñu ci bu baax a baax mu mel ne ñaan googu di sayyidul istixfaar su ma koy waxaat dañuy wax allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaxtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastataxtu acuudu bika min sarri maa sanaxtu abuuhu laka bi nixmatika alayya wa abuuhu bi danbi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru xunuuba illaa anta loolu mooy ñaan ki ma jaalaatal la ci benn yoon door a jàll ci bind bi ñu war a indi tey allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaxtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waxdika mastataxtu acuudu bika min sarri maa sanaxtu abuuhu lakka bi nixmatika calayya wa abuuhu bi danbi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru zunuuba illa ant tubarkàlla su ko defee loolu mooy sayidul istixfaar yal nañ ko mokkal ñun ñëpp incha allahu taala di ko ñaan tey matale sarte bu ko defee suñ borom subxanahu wa ta'ala boole ñu ñi nga xam ne ñoom lay jéggal beneen bi ci topp ci nga xam ne dañ koo sopp ci julli ci masabu imaam Malik imaam Saafi'i di ko boole ci sunna yi muy ñaar fukkeelu tomb bi ak benn moom lañuy wax xunuut xunuut wa huwa sunna inda saafi'iyya fi salaati subxi daa'iman wa fil witri fi nisfil aaxira min Ramadan. wa fi jam'i salawaat inda nusulil balaa boo demee ci masabu imam Saafi danaan la jullig suba jàng ci xunóot sunna la ne la jullik witar dañ cay xunóot boo dee naafi la guddi dañoo bëgg nga xunóot naafi la weeru koor mu ne na nga ci xunóot mboolem julli yi nga xam ne dangay ngay fekk balaa moo wàcc ngay ñaan suñ boroom mu teggi ko masabu imaam Saafi dañ caa def xunuut mu nekk sunna wa in tarakahu musalla saxwan sajada xabla salaam sajdatayni wa yustaxabu aljahru fiihi wa yustaxabu raful yadayni inda duaa wa xiila laa yustaxabu saalika li may wax nii mooy masabu saafa Saafi niñ ko gisee mooy ku ko bàyyi te juumte tax danga koy sujjootal xabla salaam mel na ko wàññi julli gi mu ne it dañoo sopp ñu biral ko xunóot jàng ko ca kaw ci masabu imam Saafi dañoo bëgg ci koy jàng mu yëkkati ay loxoom mel ne kuy ñaan am na ñu ne ci biir école boobu ne ku koy jàng doo yëkkati say lox mu ne wa yustahabu masul wajhi bi yadayni wa qiila yukra saalik ñu wax ne dañoo bëgg bu ñaane ba noppi mu ay loxoom ci kanamam am ñu ne ci biir masab boobu wax ne loolu dañ koo sib way yujsi si fii ducaa yadrix bihi al abdu ila allah wa sukiru lahu ducaan maxsuusa bu ñëwee ci masabu imaam Maalik nag luñ sopp ci julli gi la ak ci mboolem julli yooyu nga xam ne moom laa lim ci masabu imaam Saafii moom it bëgg nañu def ko ca waaye luñ ci sopp la bu dee julli suba ci ñaareelu ràkk bi nga koy def bi nga jàngee alfaatiha teg ci aw saar lu jiitu ngay rukkoo lu jiitu ngay rukkoo mm, bu dee ci mësa bu imaam Malik comme ñoom dañoo gis ne danga dañ koo sopp dañuy wax ne ñoom in nasiyahul musalli laa yasjud lahu sajdata sahwi mësa bu imaam Malik dañuy wax ne kii julli bu fàttee xunut du ko sujjootal benn sujjoot wa yaraw na annahu xabla rukkoohil aaxira fi salaati subxi mooy li ma wax léegi ni ñoom dañuy gis ne danga koy def lu jiitu ngay rukkoo euh, ci rakkam ñaareel di rakk bi mujj ci jullik suba ba tey ci masabu imaam Malik dañuy wax ne ñoom wa yustahabu lahu wa yustahabu an yakuna sirran ñoom dañoo sopp kii xunuut mu jàng ko ci suuf bañ koo jàng ci kaw moo xam maamum la walla imaam la ñaan yu baree baree ci wàcc ci xeeti xunuut yi waaye bii moom la euh, moom la ñuy jàngale ci masabu imam Malik ñoom moom lañ sopp ñu di ko ci def moo taxoon man tey bu ñu ñëwee danañ jàng li nga xam ne mooy ñaanu xunut danañ jàng li nga xam ne mooy ñaanu xunut boo demee ci jàkk ji di julli suba bu imaam jàngee alfaatiha teg ci aw saar ci rakkam ñaareel bi da nga gis mu noppee ab diir bu noppee ñaan gii ñaan ba mu jeex mu door rukkoo bu koy ñaan nag dañoo bëggoon yow mi topp ci ginnaawam it nga man ko ñaan ko yow mi julli sa kër yow dong nga ñaan ko kon ci ñaareelu ràkk lañ koy jàng mu nekk yoo xam ne dañ koo sopp ñaan googu nga xam ne moom lañ war a indi incha allahu taala ñu jéem koo benn bennal taxu koo gudd lool wax allahumma inna wa nastaxfiruka wa natuubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa alayka alxayru kulluhu naskuruka wala nakfuruk wa naxu laka wa naxlaqu man yakfuruk allahumma iyaaka nacbudu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nuscaa wa naxfadu narju raxmataka wa naxsha cadaabaka inna cadaabaka aljudd bilkaafiriina mulxaqun wa sallallahu ala nabii muhammad daal di rukkoo kon ñaan googu mooy ñaanuk xunuut Hmm, ma benn benn laat la ko nga ma ci gaawaay bi ndax bu dee ku ko mënul woon bëgg koo jàng ni dina xaw a jafe waaye bu ko déggee ñaari yoon ñett xoolaat li mu bindoon déglu enregistrement bi mën naa tax mu xaw a tane tuuti ay ca dangay wax allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natuubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka alxayru kullahu nas nadkuruka wala nakfuruka wa nax nahu lakka wa nax laxu man yakfuruka allahumma iyaaka naxbudu wa lakka nusalli wa nasjudu wa ilayka nasxaa wa naxfadu narju raxmataka wa naxsha cadaabaka inna cadaabaka aljidd bilkaafiriina mulxaqun loolu mooy duwaawul xunuut ñu di ko def ci ñaaleelu ràkk ci jullit suba mu doon loo xam ne dañ koo sopp ci mashabu imaam Malik mashabu imaam Saafi yi ñu def ko ñoom sunna mashabu imaam Abu Xanifa ñoom ñu def ko sunna ci jullik witar yeneen julli ci des ñu def ko fa sopp moom lañ doon jàng noonu loolu benn xeet la ci am na beneen boo boo xam ne mooy allahuma ahdini fi man hadayta wa aafini fi man aafayta wa tawallani fi man tawallayta wa baarik lii fi ma axtayta waqini sarra ma qadayta fa innaka wala yuqda alayka wa innaka laa yadillu man waalayta wala yacizzu man tabaarakta rabbuna wa taalayta loolu benn la ci xeet yi nga xamante ne mm, ci xeeti e, ñaani xunuut yi la waaye bi ma la mujjee wax te doon ko benn benn ñaari yoon mooy bi nga xam ne moo gën a siiw ci suñu boor yi te itam moom lañuy jàngale ci téere yi jàngale masabu imam malik mooy allahumma inna nastainuka wa nastaxfiruka wa natuubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka alxayru kullahu naskuruka wala nakfuruk wa naxlahu laka wa naxlahu man yakfuruk allahumma iyaaka nacbudu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nusxaa wa naxfadu narju raxmataka wa naxsa cadaabaka inna cadaabaka aljidda bilkaafirina mulxaqun loolu mooy li nga xam ne mooy ñaanuk xunut su ko defee geneen gi ci topp xëy na buñ ko dégluwaatee ay yoon yàlla mën naa def ñu bari mokkal ko ci buñ ko dégloo tey dégluwaat ko suba insha allahu taala mooy li ñu wax siyaada sajda sajdatu tilaawa fi subx yowm al sujjootub ku jàng alxuraan bi ngay sujjoot ci fajaruk bisub àjjuma loolu nag dafa am lu ko waral ndax da nga ciy jàng sóoratu sajda comme sóoratu sajda dañ koo sopp ci nga jàng ko ci fajaruk àjjuma <laughs> wala nga jàng ci alxataa alal insaan buñ demee ci mësa bu imaam saafe ñoom loolu ñoom sunna lañ ko def mutlaqan ñoom daal dañoo wax ne daa iman fi subhi yowmal jumaa dañ caa bëgg nga di ca jàng suratu sajda doona xayrihi min asalawaat wa xaala xanafiya wa baxda xanaabala hiya sunna bi shart ala yaduumu alayha xatta laa yaxtaqidu al awaam annaha min jumlati arkaani salaat ñoom dañoo gis ne muy masabu imaam Abu Hanifa ak lenn ci waa masabu imaam Ahmad ibnu Hanbal sunna la waaye nag bu doon lu sax ndax léegi tey am ñoo xam ne dañuy koy jàppe farate ci julli gi imaam Malik nag ci masabam moom lenn ci am ngiram dañoo wax ne tukura dañ koo sib intaamadahal musalla maanaam dafa sib ki nga xam ne day jiite nit ñi muy jàng saar woo xam ne dafa am place sujjóot te tey ko ndax loolu nga xam ne mooy am ci ginnaaw ñi nga xam ne ñoo topp ci moom mm, jaxasoo geek na mbir yee jaxasoo fitna ya mën a indi moo tax mu jàpp ne ki topp ci ginnaaw imaam moom dañuy bañ ilimaan buy jiite mbooloo muy jàng saaru am sujjóot yooyu ndax sujjóot yooyu muy jàng ñi ko cey topp day jaxase julli gi day jaxase julli gi léegi nag tegtal yi nga xam ne moom lañu indi bokk na ci bi nga xam ne addis boo xam ne imaam muslim indi na ko ci téereem bi yeneen téere addis sax indi nañ ko te abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma nett li ko wax ne anna nabii sallallahu alayhi wa sallam fi salaati subxi alif laam miim tanzil wa hal ataaka wa hal ataa ala insaan Abdullah ibnu Abbas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa julli suba fajaruk àjjuma daf ci daan jàng suuratu sajda ak suurat al insaan gaa yooyu ci lañ sukkandikoo loolu ba ne kon sunna la waxtaju aydan bima rawaahu tabaraani an ibni masxuudin radiallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wa kaana yaqrax fi salaati subxi yowm aljumca miim tanzil wa hal ata ala al insaan yudimu saalik beneen addis boo xam ne imaam tabaraani indi na ko mu bokk ci addisi abdulaay ibnu radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa fajaru bisu subag àjjuma laa a wax te julli suba ga ca daan jàng alif miim zajda hmm? alif laam miim tanzil muy suuratu sajda ak ahlata alal insaan muy suurat al insaan liñ ciy gis nag mooy suuratu sajda dafa am aay joo xam ne bu ko nit ki jàngee day sujjóot bu ci àggee loolu ñuy jàng alxuraan danañ ko xam masoon naa koo indi ca sujjoot ya ca suñu waxtaanu daaw wi barab yoo xam ne bu ci nit ki àgsee ci alxuraan day sujjoot sujjoot boobu lan mooy àtteem defe naa bu dee suuratu sajda mooy tolloog aaya ja suñ di waxe naan hmm. aaya ja muy waxe naan innama bi aayaatina alladina ida dukiruu biha xarruu sujadan wa sabbaxuu bi xamdi rabbihim wa hum la sujjóot ba nekk bu agsee foofu nag day daal di bu fekkoon dafa taxaw di julli ba agsi foofu day daal di rot dem dem dem sujjooti loolu mooy li nga xam ne dafa bokk ci yi nga xam ne dañ ko ci sopp tam am ay wuute ci boroom xam-xam yi su imaam rombee aay joo xam ne aay sujjoot la ci julli goo xam ne du jullik suba te mbooloo mi ni ci ginnaawam doon mbooloo mu bari wala sax mu nekk julli suba te bu sujjootee mbooloo mi jaxasoo ñenn ñi jàpp na dafa rukkoo ñenn ñi ne dafa tëb ñenn ñi jàpp na julli gi yàqu na ndax ñàkk guñ ñàkk xam mu romb ko jàll bañ a sujjóot bu boobaa amu ci benn bàkkaar loolu bari na borom xam-xam yi wax loolu te it waxat faalahu nabi sallallahu alayhi wasallam fii ba'di salawaatihi nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ci ay julleem yoo xam ne def na loolu bokk na ca yooya nga xam ne julli na te agsi ci barabu sujjóot te sujjóotut wax ji nga xam ne Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhu ma moo ko wax ne inna nabiya sallallahu alayhi wa sallam sajada fi salaati suxri summa xaama fa rakaca fa raaynaahu annahu xaraca tanzil maanaam suuratu sajda te bam ko jàngaatee su jootut muy addis boo xam ne imaam Ahmad ak Abu Daawuda ñoom ñëpp indi nañ ko mbokk mi bàyyi xel almisbaax boo xoolee kon da ngay yëg ne julli gi jeex na ndax wax naa la taaya wax la ñaan gi topp ci taaya beral la bu dee julli suba jàngal la xunuut li ci des nag mooy ku julli julli suba ba noppi ñaan yi muy ñaan ku julli suba ba sëlmal wala waxtu man di doon mu julli ba mu julli ba noppi ñaan yi nga xam ne dañoo bëgg mu di ko ñaan ndeysaan nañ ko def ci ay kayit doon ko jàng fële ci suñ daara ja liberté 3 defe naa soxna Aram si la mokkal na ko dañoo sunnaal ci ki nga xam ne day julli bu sëlmalee ci julli gi mu wax astaxfirullah ñetti yoon yow miy julli boo jullee ba sëlmal wax asalaamualeykum wa rahmatullah dañoo bëgg mu teg ca astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah mooy ñetti yoon yi daal cey teg ñaan gi wax allahumma anta salaam li may taxaw ma wax mu wax salaam waaye xëy na nga daan dégg anta salaam wa minka salaamu baax na tabaarakta yaa zal jalaali wal ikraam kon jëlal sa big ñu jàng ku julli ba sëlmal ñaan yi muy ñaan day wax astaxfirullah ba mu ñetti yoon astaxfirullah astaghfirullah astaghfirullah bi mu salmalee julli daan ne allahumma anta salaamu wa minka salaamu tabaarakta yaa dal jalaali wal ikraam allahumma anta salaamu wa minka salaamu tabaarakta yaa dal jalaali wal ikraam daal cay teg geneen ñaan goo xam ne gu gàtt la mooy allahumma a'inni ala dhikrika wa thukurika wa xusni ibaadatika ñu baamuwaatal la ñaan ñaari ñaan yooyu xam naa waxtu waa ngi buñ ñëwee suba gën a yaatal ñaan yooyu nga xam ne mooy topp ci ki julli ba sëlmal war koo ñaan bu njëkk bi mooy day wax astaxfirullaah ñetti yoon wax allahumma anta salaamu wa minka salaamu tabaarakta yaa dal jalaali wal ikraam allahumma a'innii ala dhikrika wa sukurika wa xusni ibadatika loolu lay ñaan bu nga xamante ne sëlmal sëlmal na ci julleem def na yeneen yoo xam ne yooyu yëpp ay ñaan la yoo xam ne bu am na aw lay danaa la ko indil hadis nga xam ne mooy wan ne yeneen saa sallam moo ko digle ak yi nga xam ne moo ko ko waral ak yenn ci ngëneel yi nga xam ne ku koy def suñ borom subhaanahu wa taala dig na ko ko ci yàlla nañ dajeeg moom mbokk yi sant nañ leen bu baax jaajëfal leen bu baax jaajëfal oustaz Alioune sàll mu baax mi mu ngi nii di egsi moom la ñu xajal barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar ñu ànd ñun ñëpp déglu ko dellu di ñaan suñ borom subhaanahu wa taala mu defal ñu jàmme àdduna ñaan ko it mu defal ñu suturas àllaaxira seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.